les internautes alaikum les internautes waaw di am mbekté rek ak contentement di ñëwaat ak yéen ci émission asmi sport c'est spécial tay tay mon nañ wax ni mbekté lañuy défé émission bi waaw di wax ni rek euh, encore une fois félicitations suñu équipe nationale U20 di wax ni rek c'est le football Sénégal qui gagne tay mën nañ wax ni encore une fois duma ci tay di ci wax le football local wa mën na wax ni Asmoon TV 500 pour cent football local ci loolu rek lañuy dox motax suñu amé mbékté dañ koy wane diko wax fuñu tollu di wax tay mbékté lay waxé tay tay Sénégal gagné na wat jël Coupe d'Afrique tay dañ naan alhamdoulillah alhamdoulillah alhamdoulillah tay suñu football tay di mën nañ wax ni football sénégalais mo nek tay ci kaw ci Afrique wa di wax ni rek encore une fois mënuma ma féliciter joueurs yi mënu euh, féliciter l'entraîneur malik Daf. kan moi malik Daf, ancien international ancien joueur port autonome de Dakar def fi ay j'ai yu j'ai joué Gorée joué bitim réew Belgique joué Liban joué na pour ne foo ni ne tey Malik Daf, mën nañu wax ni Malick Fiji def na fa empreinte am ñibbisiwaat fii Sénégal consacré manam carrière am tamit ci côté entraîneur defaat ay preuve tey grand gàcce ngaalaama mënu ma bañ wax ci yow parce que dañoo nos ma xam sa caractère xam sa mën-mën di ni rek wax deug yalla encore une fois félicitations Malik Daf parce que yombul xam nan la nit ku bax nga nit ku gëm nit ku nañ wax ni la relève est assurée ici au Sénégal chaque jour du ma ci tay di ci wax ci Sénégal ci équipe nationale même ba ci ay mun nañ wax ni am nañ ay joueurs locaux yo xamné war nañu mëna intégrer l'équipe nationale A am nañ ay entraîneurs yo xamné bis bu Aliou pare am na ay entraîneurs sénégalais yoo xam ne pare nañ pour euh, maanaam yeggale mission bi waaw parce que loolu moom defe naa gis ngeen ko te am na loo xam ne sax munu sax bëri wax sax a tax may wax loolu di wax ni rek Malick tey jii nii dañ lay ñaanal ndam lii nga jël tey yàlla na la jik nit ku baax nga Malick parce que il faut ma wax ci yow il faut ma wax ci yow yombul parce que gis nañ sa liggéey gis nañ ko port autonome de Dakar gis nañ ko ak jaraaf gis nañ ko ak euh, euh, équipe nationale petite catégorie gis nañ tamit nga taxaw rampe ba agsi fii tey jii nii lii mënul woon maanaam mënul woon mënul woon bañ a am waaw mënul woon a ñàkk tey jii nii sa ndam lii mënuloo woon ñàkk kon kontaan nañ trop trop trop trop trop ci football Sénégal comme ni mu ko waxee rek def nañ entretien ak le président Djibril Wade gis ngeen tamit li mu wax ci football Euh, local. bi tay ji nii gis nañ suñu président tamit lancé ben message def ben appel pour ñu defaral ko plan sur le football local football local bi tay ji ni dañuy ñaan sponsor yi pour ñu gëna mëna accompagner suñu football local parce que tay ji ni suñu club bi soxlo nañ ko parce que ni ko gis ngeen li wax rek équipe nationale yi gis ngeen ni ñuy jëlé coupe d'afrique tay ji ni li dess lañuy wax moy les clubs mais club pour ñu jël ko faaw ñu am ay moyens mëna am ay joueurs suñu joueurs yi nga xamni ni ñoo fi di def ay ay prestations yu baax chaque année ñu mëne fi tok togaat ba nga xamni tay tey jii dinañ am ben niveau bo xamné sur le plan africain suñu club yi jël ko encore une fois ñi ngi wo les sponsors ñu ñëw accompagner suñu équipe suñu suñu suñu club yi di waxaat encore une fois rek ci mbégte lay waxé motax tay j'ai pas les mots sax pour gëna mëna mën mo yi nga xamni bëgg na ko mëna wax ci football local en plus sur équipe nationale U20 yi encore sur l'entraîneur Malik Daf, gàcce Malik Malik pourquoi pas après Aliou Cissé du Malik Malik une Une question là, là vais vous ko ngeen <laughs>